waye boyal aw lamine di ci wax lo xamne amul ben njariñ rawatina bu ci boolee nekul lu am loolu ñaari musiba la lu am sax te wër waye amul njariñ ab julit amul jot ci diko wax waxtu wone rek dañ ko sant nay wax lu ko amal njariñ di amal njariñ julit ñi diko ko ci sawara diko tabal aljana bo legge te yaatu na loolu loo ku ne man na ca jexal ak dund waye ñu moytu dari nit ñi ñi yaq di wax ci ñom lu waxu doom adama yalla da ko war man lool lepp lo wax ci mom bu la ko baalut ba dañ ko wax kon wax ci nit wax ci waxut amul solo mo xam kuy dund mo xam ku de ku dund sax mo ci tane ndax man nga ko jéggul ëlëk mu jéggal la waye nit bu xasse faatu nga wax ci mom ñaaw teef jeexna gàddul nga ko ak jo xamne ci karam seen borom nga koy lay ji bo yi togn baxu ñepp lañ wara nit doom adam ci boppam rek bo réussite wax ci mom safaan rawati nak nit ku baax nang nit ku baax ñuy moytu loolu nit ñu baax ñëpp nag mbaax mi ngi yem ci doon ab yonent sëriñ bi mag bi jàngaloon nañu yonent ñoom ñëpp la yàlla boole amaanatu aw melokaan la woo xam ne ci ñoom la nekk mooy jub safaanub amaanatu mooy mooy yàlla du daal ab yonent dafa jomb ci ñoom sëriñ bi waxoon nañu ne wa annahum ñoom yonent yi lay wax yajibu fi xaqihimu sidqun amaanatun wa tabliiguhumu waxoon ne wa kadibun xiyaanatun kitmaanu xaramaha alayhim dayyaanu yooyu yàlla da ko aramal ci ñoom ay istaxaalatil jamiu fi rusul fa kun musalliyan alayhim yaa rajul loolu kuy jàng lislaam téere bi nga njëkk jàng ci téere yi sëriñ bi taalif ca la ko jàngalee nga xam ne gono yu ndaw yi war ñoo xam loolu loolu mbokk yi nañ ko teg ci suñu kanam te jëf lu ñu amal njariñ ngir bu ëllëgee ñu mën am teraanga kanam suñu borom